Mr. Uber.

kaay nii Siteu Siteu kaay nii waa luur bee laa bëgg ah, waa luur bee laa bëgg kan moo nekk fee kee laa bëgg gaynde Rebeuss bee laa bëgg duul ma doon fa nekk de gaynde Rebeuss bee laa bëgg supporter nag après na ngeen wax ak ñun sëriñ bu paree sëriñ bu wax dina wax dina wax xam naa ne may def ma ni seen supporters yi ngeen di wax ak ñoom ñu ñibbi ci jàmm ak salaam. sëñ bi Dia eh, déglu li ma lay wax. jaabaare bàyyi ngeen wax ak ñoom ñu ñibbi ci jàmm ak salaam. buñ leen jàppee fii ngeen di taxaw naan defuñu dara ah. fii laa dëkk amul bandeeg yooyu noonu wax leen ñoom ñu ñibbi ci jàmm ak salaam ñaar yéen a fii dégg nga message boobu laa ko gën borom Touba. jërëjëfee borom Touba gàcce ngaarama baay Abiyo Mbacke di bëggee sama gaay yëpp ñu ma àndal barke Serigne Touba tey waar ba ñëpp ñëw nañu wax ñu ñibbi ci jàmm liggéey nante gars yi avant tout waaw waaw non ñu wax leen ko ñu dégg wax baali non à la violence bu paree na déglu leen déglu leen déglu leen sama gaay yëpp ñoo far maa si bu war lamb moo ñu boole duñu ay noon waaw ren ñu ñaar yore ci biir géew bi mais bu jeexee jeex na yéen yëngalee rek ci géew bi ñu suul tànk yi ndegeen bopp bi mais avant tout damay sant ñii barki sëñ Bamba tey wala yëpp a ñëw képp kuy wala wala yëpp a nga ne leen ay waagee leen ay ñu yëpp ay waagee leen tey gaa dañoo ñëw barki sëñ Bamba kay ñëw na ñëw doole Lamine Lamine may bëggee bi ndax ñun ay xale lan defuñ fi dara gars yi bàyyi lépp ñëw teewal ñu te defuñ fi dara barke Cheikh Amadou Bamba di sant promoteur bi mais a tout Lamine ñëwaguma ci làmb ji Lamine dama di xale di bëre grand combat dëkk Rëbës Iba Mar dama koy yeb di wax képp kuy bool bool waa pàkk bi ñetti pàkk maa leen woo rawatina nag Abdou Ndioum maa ngi doon ci bi damaa bëgg bool bool yi ngeen déglu ma gën leen ngeen jàppale ñu ñun ay lan lan waxal sa digganteeg sa dina ñëw day yëngu lay neex dina ñëw mais avant tout li tax gars yi duñu tëgg mooy popul popularité bi maam ngir yàlla Diop ak xepp na ko ñu mel ne Abdou Dioum ñoom maam Gor Samb ñoom Mor Diab di woo gars yi pour ñu jàpp ci combat bi ñoom Pape Gueye ñoom Buri di sant gars yëpp am ma seen fay ñu ñëw ci combat bi waaw di ma auzu billah bismillah ina wani yàlla di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf jaaraama mam sero fa jalaw la sëñ mataar Mbacke di sant àdduna di nuyu Ngor Yoff Waxaam Almadi Travo di sant ñi ñi ñini ku si nekk ak bi mu ma dégg ñii ku si nekk ak lu ma wax loo moom ñii yëkkati ma dara di leen waaw di wax ne ñii ñooy lépp si man ñii ñooy yëg seen fukki dërëm seen saafara di paas oto di ñëw fii di tagal seen boobu ay tige di sant ngor di sant àdduna di war ne sirif bépp sirif bu may dégg rek maa ngi lay tàllal samay loxo ñaan xale laa ndaw laa dëgg yaakaar ma maa si woo ñëpp di ko teg loxo seexal walu na maa ngi woo ñëpp di woo bépp mbaaxam mbaaxeel tarixa diina yëpp maa leen di woo di di woo waaduna xale laa sa adversaire sa adversaire sa adversaire li nga waaw moom mooy maam caatu rëbës maam kii di ko ne xale yi caatu rëbës teel a nen nen yéexa nen nen kon da ngaa war ñëw nen noppal say ma la sita waaw Lamine waaw suñu koy amee teew njaaxum deux bu loon passé damay sant Serif wulu na Serif wulu na borom gor barke alxuraan ak doomam Serif si daati aw xam na moom baar mu fay dugg moom du ngaaga ba fa doon fekk di ko dugg di ko woo ci combat bi. tournel caméra yi mën laa am na rapport ay dib ñu fi. Grand Yoff ngaaga Bélène Guédiawaye mais doy suñu rapport doomu Fass pour Altesse ñu koy woo ci combat bi bu ñëw jàpp ji ndax ñu doon koy jiitaloo di ko saxoo Altesse mu ngële doomu Fass mooy suñu rapport. mooy suñu dib mooy suñu ngaaga Bélène amaana xam nga mi neen tawuñu mais man dama koy bëggee ba koy woo ci samay wax ba ko baax taxaw ba tey bu ma déglu xam ne benn wax laay wax ngir yàlla war a sóor na taxaw ñi ma xam ñëpp sax su laa koy ñaan maam la dama ko saa na la dubun bi muy préparé wul dëgg moom la doon ko daage moo ko wax dëgg loolu dëgg kon kii maam la yax yi moo ndaw doole xaju ci yaramam day te xel gars yi mais ngalawaay dañ ñoo fay làmb xale pose xale reposé yi ma koy waxee buñ bëre buñ bëree làng yow làng ngay bëre buñ bëree bëri làng nan taxaw ci digg bi suul tànk yi tey ji sanguñu mbër mbër boo xeexee barke maam Cheikh Fall dama la duma bu la neexee ñëpp xam ne damaa mën a bëre ñu teg bëre bi teg ndële sama tànk yi da ngaa mën a da ngaa mën a naa la ko ñu taxaw xeex ma ak yow waaw wax na man damay woote waat xale laa non waxal ak moom waxal moom mbooloo bu xamante ne nga la waane bu ñu ñëwoon xajuñu fii ba ñuy ñëw ngor rek sañu yaram dafa daaw damay woo ñëpp képp ku di wax petit di wax ne kon parrain yi fi jugee geste bi ñu def ñu ngi woo pare bi ñu tuddee làmb ji pare bi ñu tuddee làmb ji ñu ngi koy woo ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale ñu si liggéey lu mu jënd doyul pour l'instant rek commande naa waaw kii moom na xam la muy andi mais man la may andi dafay beet kii ña ko andi bu bu doon làmb dafa am transféré dañ may recruter kii kii bés bu taxawee feere mbër bu amoon ñoom dañ may jënd man maay Neymaaru làmb ji kii di sant di Fadel li ma koy laaj ma ko duuma de buñu bu naxante quoi da laa fay fay bu naxante ñun ay xale lan loolu nga wax ndax di nga taxaw laa boo ndax di nga taxaw da nga baax bëre lànk bi ngay bëree gaay bu la jàppee nan taxaw wéy ci gi maa yow ku man sama loon duma waaw di wax kii xëy na moom dina xeeb xaalis mu lakk sa daay man gaynde laa ay xale ñoo topp sama ginnaaw man rab yabuñu ma ma ngor may nekk si làmb di daw man sama bakken jox naa la ko man xale laa nekk Baye Fall doo ma succès. boo nekkee boo nekkee lu ma doon man damay xuusi jàll gay naa di di la may rafet rayante doo ma succès doo ma dara. nekk Baye Fall nekk xale eh, dara laa lay def nga ma fii nekk xale yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla def ndam yow maam booy nga maa gën a nekk maam booy nga maa la gën a nekk xale parce que Seydina Mohamed bu muy bëree yow maam nga

waaw nag maay sant yàlla julli sant sama ñaari waajur parce que nit bu liggéey ndey bu liggéey doom fayu maay sant ñaari waajur baax di sant maintenant bi yëpp di sant Ndakaaru booy def leen ndànk dama bëgg ngeen dal dama bëgg ngeen dal comprendre nga yam leen waay bañ sant dama bëgg ngeen dal quoi supporter dama bëgg ñu dal lii fola le 6 mars que le maire gagne ñun le 6 événement la non xam nga événement booy ñaar dafa ñëw fi dafa di ñëw mun ñëw fesal stade bi li mos am ci seeti do barki alxuraanu karim lu leer laa lamin seize heures ku ñëwul le six seize doo am foo toog billaahi lu naa neex boo xee xeeñ parce que lépp danoo suñu liggéey ndey la ak suñu liggéey si lamb te danoo boole ay xale yu ndaw di sant sama PDC Omar Sow bu baax di sant ñaan ñaa bu baax di sant Massamba Dieye bu baax xam nga PDC Omar Sow lii bu ma neexoon ma defee laa buñ ñeneen mais maa ngi ñaar ñi ay jàmbaar lañu ay ay jàmbaar lañ ay di di sant di sant Ama Dia